ci euh, dox ay jéego parce que ñoom aussi tamit ku ci nekk am nga ci koo xamante ne xam nga ko peut-être buñ ko sollicité woon euh, doo egsi fii ba nga xamante euh, di sorti bu ci presse bi di ko war parce que da nga ne sànq léegi nii da nga nekk nitu kersa bëggoo sonal qui que ce soit moo tax depuis deux ans yaa ngi sooxaale ak li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi. ñoom buñ ma dimbalewoon woon dama toog fii <laughs> bu dëgg rek dee dëgg nag ah. Mm-hmm. bu fekkoon ni jàppale nañ ma. Mm-hmm. du toog fii di ko wax. kon réglé lañ problème bu yàgg du dëgg bu bukki yàppatul béy béy waru koo man seen nawle la yàgg na maa ñëw tournage <laughs> bu ma nee salaamaaleykum ci saal bi am ñun na di ma di ma di ma di ma naan Baye Fall fu ma féete Baye Fall du gis yaa ngi dégg ñoom waa wiiri wiiri yooyu turu lëm amu ku umpule ni Baye Fall wutal ay weer ba di dana yàqu de loolu lañ ma doon wax bu njëkk kon may ma wut ay weer sottiwut nee naa la liñ ma doon fay mën naa ko lekk ci ñaari fan kon xam nga mënumaa faj man mi jaay sama terrain jaay sama moto Ducati bi maa ko indi fi maako ko njëkk a fii Sénégal te damaa ñaq am ko Ducati ku xam moto xam nga Ducati bi ma koy yor booba 9 million lay jar maa ko jënd ci sama propre moyen kon juma duma yambar mm-hmm. bu ma demee ba bien yooyu yëpp ma ñàkk ko ndax sama bët yi suturaal sama bopp a tax <laughs> du dëgg ñi ma xam xam nañ bàyyi siidi ngi nii fu ne ànd nañ fa mën ak moom bàyyi siidi mii xam na li may wax fu ne ànd nañ fa mën ak moom ci senegal man góor góor guy takk tubay di du ma yëpp fu ne ànd nañ fa mën moom dañoo dem ba mujj gi bu dawal danaa ma gauche gauche droite droite gauche gauche droite droite ñoom ci seen jëmi bopp ñu naan ko yow da ngay xaru Baye Fall mi nga ngay àndal dana la rey ci àll bi ma ne ko tànk may tëye direction bi duñ dee mukk kon loolu moom defe naa ne féete na ko de. kon buñ la déggee ñoom ñi nga xam ne doon nga ànd ñoom ngay man ñëpp xam leen comme ni ko Awa Sow wax. Eh, loolu lay nuru de am na ci koo xamante ne yoral na ma sama xaalis ma. ci ñoom du ma tudd nag tudd kenn waaye bu déggee dina xam li ma koy wax. mais hmm. sama xaalis ma woo ko ni ko saa ndaanaan maa war a jënd ay verre yu jar cent cinquante mille li ma yoreel bu moo mënut a jox lépp it loo ma jox man ma muttulil ko sama bopp mun ma a la waar fii ma ko woon du ma ci ñoom la ko waaw Baye Fall maa ngi lay ziar pël bu rafet maa ngi ziar bu baax pël yaa ngi si jàmm yaa ngi ko eh, damay desandi ci wiiri wiiri eh, nga ne bi nga doon dem dañ naan Baye Fall utal verre balaa sa bët yi te ku ne xam na ne bi ngay joué danga doon dawal moto. Mhm. di dox say activité te xam nga sénégalais xamut lu teew maanaam boo demee ba sonn ba jeex la ñuy soog a xam ne kii li muy wax dëgg la. Mhm. maanaam boo naan damaa feebar munuñ ko gëm. fekk tëral tëralu la ba nga sonn. Mhm. ci la ñuy soog a xam ne li nga doon wax dëgg la. mais est-ce que jàppewuñ ko ay kaf ay mbalak ndax man mii yéeg naa sa moto du génn du ñaar. tamit est-ce que bët yi réellement moment boobu noonu. déranger woon na la ba tax nga war leen ko wax wala toogoon nga ak ñoom xamal leen ne say bët day métti da war a faju waaw yow nag yow sax dama am benn. boole moto bi yow laa ko abaloon ndax damaa jaay moto ba. ana sama weer ya. delloo ah man de ba ma jaayee moto ba xam ne dawalatuma moto mu ñëw Thiès interview. ba muy dem moto ba mu duggoon solu weer weer yi moom laa ko joxoon te weer yooyu defe naa Sénégal fii boo dee xool ku ko am du yombul de bu dëgg na wax moom laa ko abaloon kon sama weer yooyu noonu ba ma ko ba yaa ngi fàttali ko loolu ëpp na daaw ëpp na daaw ëpp na ah waaw moom laa lay wax ni bi bi ma jaayee moto ba mm. weer ya ma doon takk nga xam te ne ay ay ay bandoo la woon yow laa ko abaloon yéeg ci moto parce que dama laa yërëm ca ngelaw la mooy abal la ko kon booba laa bàyyi moto te ëpp na ñaari at ñemeetuma dawal moto. voilà parce que yow xam nga li nga yow sama xarit nga xam nga xam nga bu baax ni que man mii amoon naa problème yu bët yow xam nga ko bu baax ndax yow sama nit nga kon xam nga ne yow am na loo xam ci li may wax nii te boobu pourtant boobu ba léegi maa ngi dem ak sama ngor li ma ci def kenn xamul nu mu tool li ma def ci sama bët yi billaahi wallaahi taala buñ ma ko delloo woon lu ne mën naa ko cee am am na sax ku ma jege ku ma ni waroo woon a jaay terrain bi ndax terrain mooy àdduna waxi tabax nga war a wax waaye waroo wax wax ma ne ko man sama bët yi moo ma gënal moo ma gënal àdduna te kooku noonu ma posé question boobu mm. bilaay ca laa ko meree mm. waroo woon a jaay sa terrain bi ndax terrain bi boo ko jaayee euh, looy tabax bu ëllëgee ndax terrain bi fi mu nekkoon nangam nangam nangam ma ne ko sawaay man sama bët yi moo ma gën a bu ma jaayul sama terrain bi ndax sama bët yi da génn di di di di di di du ma ko def. mais euh, lan la la moo la fa bàyyi woon wala ndax nee nga sa ngoor fois ñu laaj la ndax fay nañ la nga ne waaw mujj yëpp gisatuñ la woowatuñ la lan moo xew. Ah, man daal li ma ko jàppe mooy boo naxee nit boo naxee góor yàlla doo ko nax ñaar yoon seede yàlla te man kenn du ma nax ñaari yoon te nag bu ma doon ngaa kay war na maa muus waaye demoon naa ba dugg naa ba mënatumaa génn ndax coupé bokkatuma dafay am benn instant du la ci boole ndax arbitre bi mooy génne ñu kii dugg ak kii dul dugg waaye boo jóge jóge ca tuusee rek nga ne ñëw ni bokkatuma ci demoon naa ba sénégalais yi jaral nañ ma lu nekk même bu ma ci amul xaalis am ci bëgg naa la am ci yow laay seetaan am ci yow laay daaneel am ci yow yaa may yow day yaa tax may seetaan wiiri wiiri li ma leer ci leer ba leeraay ma yàlla mooy man raison bu nekk dem naa fa ci Sénégal neuf million sénégalais yi ku ci na jàkkaarloo na maa ngi yow nga ne ma yow yaa tax ma bëgg théâtre loolu demoon na ba poussé ma bu ma génnulee sax daf may metti même bu ma ci amul xaalis même bu ma génn lee daf may metti yaa ngi dégg te ñoom ñu ma doon liggéeyee ndool lu jiitu ay théâtre laa doon ànd ak ñoom foog naa ko fepp nañu dem xool vidéo yi ki ci nga xamante ni moo ci gën doon star sama xarit la ànd nañu lu ëpp ñaar fukki at ki ci topp jàppe woon naa ko ni ko ñoo bokk gëm-gëm keneen ki ci des ñoom ñëpp samay frère lañu mais amul kenn ku mën a yëkkati fukki dërëm ni ma lii maa la ko jàppalee ci sa bët yii te xamoon nañ ne man am naa problème. léegi faju rek dem faju ji rek parce que mënuñu ma faj fii. mais Baye bu ma la déggee sànq nee nga nax affaire nax mu mel ni kon waa Soleil Levant dañ la exploité loolu. non du sax mais ni ma la ko mën a waxe mooy. Hmm. Euh, am na foo xam ne boo fa jaaree nit te temps yële. temps yii munoo fee jaar ak moom. temps yële dana doon nax. bu ma demee bay lekk ñax sax am na loo xam ne duma ko nangu. Mhm. ku yàlla bind nag man ragaluma la. billaay billaay taalaay. pour sa bopp jëm kaw sa tànk jëm su ma ragaluma. waaye maa ngi lay fay. Mhm. la Euh, nga ni boo daan tawal euh, bàyyi dalaan la gauche wala droite aussi boo ñëwee tamit tournage ñu lay faral di wax que ni euh, moytu ndax ba ci neexul. Mhm. kon ñoom da doon ànd ak ñoom mais lan nga ci jàngat ci loolu ndax jàpp nga xam ne moom moo di sa handicap. ah mën na nekk loolu da xam nga comédien yu daje moom. lu ñuy waxante ci seen biir yëpp doo ko jàpp. Mhm. mais am na loo xam ne bu ma demee ba waxtaan ak sama ngeganaay sabotage laa koy teg. ndax dégg ngeen bu baax li ma wax. Hmm. comédiens yu daje. dañuy kafante lu nekk. waxante lu nekk parce que seq nañ ko mais am na loo xam ne bu ëppee sabotage laa koy teg. Hmm. waaw loolu la quoi. Ah, salaamaaleykum waaw am na ci koo xam ne ñu ngi déggante moom. fu ma fu ma ko fekk sax ñu euh, waxaan suñu wàllu àdduna ñu ci des koo ci woo du la jël. salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi lay ziar Gallo la xaritu Thiat Gallo maa ngi lay ziar baax waaye Gallo naka yittee sant bu baax en fait sama question man mooy dama koy li nga xamante ni mooy sa activité précédente yi nga daan def hmm. ndax jamono yooyu fekkoon na la nga nekk si sa digg doole comme ni nga koy waxee boo waree dox sa soxla dem doxi ko hmm. mais léegi pour nga dox sa soxla il va falloir ni gunge la hmm. ñaari situation yi boo ko toogee wéet di ko comparer quest dama dootul bëgg dara ci àdduna barke moo bëgg dara ci àdduna damay dem ba dara safatuma fi nga ni ngay wax man ni dara safatuma parce que bu dara nag Cheikh Rafa rek laa gëm dama dem ba dara duma ma safate du ma sax a bëgg a dox waaye Mesela. Mesela. Sandırak. Sandırak. Özür dilerim sabah. Sandırak. Hayır var ya baba. Sandırak. taalibu suñ Tuubaa nga sant léegi est-ce nga defaat beneen appel ci ñi nga xam ne ñooy autorité sénégalaise yi pour ñu wattu ko ak ci yan coordonnées lañ koy jotee ci yan numéro lañ ko war a mën a jotee bu fekkee dañuy jël seen dimbal di ko jëmale ci waaw parce que tungu na lu teew ñuy nataal. Mhm. comprendre nga. Mhm. te Fall li fi wax lépp. Mhm. maanaam ku nekk dégg nga ko. te li may wax chaque jour rek mooy jullit bu nekk jullit nga. góor su nekk góor nga. comprendre nga lii mu def nii suñ Tuubaa xam na ni ñun ñooyu ñaar loxoom parce que tamit am na foo xam ne tamit duñ dem ba suñu nit la tey ngay gis ba gisatoo loolu loolu loolu loolu boo koy imaginer sax neexul waxuma laak nag mu dal la comprendre nga parce que tey àdduna lépp gis-gis la waaw àdduna lépp gis-gis la taalibe suñ Tuubaa la nag Baay Faal dëgg la barki maam Seera Faal tey bu tuuree xéwal rek xëy na xelam moo sori waaw que tey ki nga xam ne moo yoroon njabootam tey ñu yaakaar ko ci lépp di ko xaar ci lépp bu demee tey ba toog ñu koy womat buy dox metti na mm. barke suñ tuubaa day jaayante nii rek parfois nit nuyu ko moom nekk nanteem mooy tax yow doo xam li ko dal mm-hmm. waaw mais yow mi koy nuyu boo bàyyee xel dëgg mm-hmm. di nga xam ni kii est-ce que Baye Fall la barke suñ tuubaa démb toog nañ nit ñëw nuyu ko xaritam keuse ñoo ko xam ni sekk nañ lu nekk mm-hmm. nuyu ko di jàmm santeeg moom ba kooku génn dem mu woq ma ni ma kii kan la barke alxuraan comprendre nga kon metti na ñu ci woo ñëpp comprendre nga ku ci mel ni tey Doro Gueye suñu frère la gis nañ lu baax yi ngay def ci dëkk bi man soq sa frère maa lay woo ndax suma combat bi passé dama ñëw dernier moment nga def ci loo mën ak loo mënul di ci woo kenn koo xam ne suma frère la suma xarit la tamit muy Ousmane Fall borom Batara xam nga borom Batara fi maa ngi lay woo bu baax a baax a baax a baax ndax lii tey suñu combat la ñun ñëpp di woo ki nga xam ne mooy Thierno ba man du ma woo kenn te woowuma la parce que xam naa li tax ma lay woo te am na fuñ jaar ci cas yu demee nii dama lay woo nga ibbi bunt yi ñëw jàpp ci comprendre nga di ci woo ku ci mel ni suma jigéen suma xarit Rama Maki dama bëgg xam ngeen jàppale ma ci combat bi nii Mortala du ñu ngaaka AS Pikine maa ngi lay woo ci combat bi nii woo naa ko pour mu ñëw sax pour ñëw fekkee lii nii parce que tamit xam nga man yii nii yu ma ciy dox yëpp damay woo Mortala du ñu ngaaka xam nga Diaz AS Pikine maa ngi lay woo ci combat bi nii xam naa li tax nekkoo fi mais xam naa li tax ma woole ci combat bi dama bëgg ngeen jàpp ci kombaa bi parce que Baye Fall Baye Fallu Sénégal la mm. Baye Fall Baye Fallu àdduna la diaspora bi ñu ngi leen di woo yéen ñëpp lépp lu ko waay mën a dimbalee te yàlla tax man Sokh seen frère maa ngi leen di woo di leen ñaan dimbal suñu yaay Marème fay sàll dama ciy insisté waat mm. comprendre nga dañ lay ñaan fi nga jaar ñeneen ñi sénégalais yi teg ci seen bët nga dimbalee ko suñu fereer bii nii parce que tey soxla nañ ko ak yeneen i cas ak yeneen i cas man li may wax chaque jour rek takk sër moo ma booleek bëre mais man lii laa jàpp ni mooy samay komba te bëgg naa képp koo xam ni mus ngaa sonn ci soq wala nga yàgg sonn ci benn doomu aadama te yàlla tax ak xol bu set nga ñëw jàppale Baye Fall ci barki Seydina Mouhamed waaw moom nag numéro am dinañ leen ko jox ngeen affiché numéro bi diaspora beeg fépp lépp lu ko waaye mën a dimbalee te yàlla tax ñu évacuer ko dem ñu lijjanti situation mu ñëw yeggali parcours am ci jamono parce que tamit nekkul paa boo xam ne jeexal na nekkul ku kenn yaakaarul parce que ku yor njaboot njaboot gi di la xaar yaakaar nañ la comprendre nga ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen dimbali ko ngeen taxaw si parce que Baye Fall ku ko xam-xam ni góor gu dëgër la ku ko xam-xam ni ku am ngor la mais feebar dina toll foo xam ne da koy weer boo ko weerul du saafaraw parce que ki jaay ay terrain jaay ay bien jaay ay motom lépp lu mu yor mu def ko ci ay bëtam mënul wér kooku bu gënee toog day gën a metti comprendre nga te moom la njaboot gi di xaar <coughs> moo tax ma ni ko jàmbaar mu ne ma naa ma ni ko góor nga te góor dëgg-dëgg góor dëgg-dëgg du tàllal loxo parce que xol ba moo ko dul attan mais am na fu muy toll foo xam ne loolu lépp danga koy jël te ko suuf waaw ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp képp ku gis lii seetaan ko nga ñëw jàppale Baye ngir bu dee benn fan bu nga xam ne bégal na la ko nga ñëw dimbali ko te yàlla tax waaw numéro am nag dinañ ko affiché jox ko ñëpp lépp lu ko waaye mën a dimbalee nga yónnee ko ci numéro bi waaw jaajëf bàyyi léegi yow joxel seen numéro bi dafa xamante ni aussi bëgg naa ko laaj te yaakaar naa ni bu ñu bu ñu dajaloo ci jotaay bi série yi gis nañ ni à part Wiri am na série yu bari yoo xamante ni dawaat na fi te waa Soleil Levant ñoom ñoo ko def euh, est-ce que série yu bees yooyu nga xamante ni tourné nañ ko am na ci yoo xamante ni woo nañ la déedéet woowu ñu ma

ok ok jaajëf ak sax